mbokk yi ñu ngi leen di nuyu amaan mbegte ak contentement bu mag jàkkaarloowaat ak yéen ci biir Bantamba yi mbokk yi tey ñu ngi fii ci jaxaay jaxaay bu ñu ko waxee sa xel day dem ci góor gu mag góor gu yiw góor gu baax góor goo xamante ni am na lu mu defoon ci biir làmm muy kan Père Serigne bu Faas tey mënoo tudd jaxaay te tuddoo ko tey nag ki ñu seet si doomam la am lu mu def ci làmm nee naa la def na six combats waaye def na six victoire kooku kan la vite fait vite fait mooy xale bi nga xamante ni nii ndaanaan la ci wàllu làmb mi ngi wane ay preuve ci biir làmb waaye mbokk nii la tey yenn mbër lañu wax tey moom lañ yenn sul ñu xool nan lay doxee ñu xool vite fait ndax nit la koo xamante ni nii am na ay am ni jàmmam ci koñ bi wala na la nekkee ci koñ bi mbokk yi noonu rek la ñuy defee ak yéen saa su ne ñu bëgg leen ak yéen ci wàllu làmb lex te yow laa àndal tey nag xam naa ni da ngaa xaw a jege di mais xam naa ni buñ commencé rek di nga yëngatoon ndax madame Badji mu ngi lay xaar waaye defe naa ni Pape Modou Mbaye mu ngi lay xaar ñëpp a lay xaar lex ñu dem ñu xool waa Jaxaay nan la nu nara waxal ki nga xamante ne nii mooy seen mbër waaye balaa loolu jox ma benn combat vite fait bu ko defee ñu daal di ñëw kan ma ma koy jox madame Badji madame Badji jox ma benn combat am vite fait ñu xool nan lañuy ñëwee ak ñun. ñu doog a ñëw jox leen ko. léegi gis nga madame Basi lu mu la jox ci combat boobu noonu xale bi moo ko bëre vite fait moom moo bëre lii. vite fait noonu la góorgóorlul xale nga waaye doon xale teewut am jom ñu xool lan moo xew maa ngi ci borom café gi ah dam nday eh borom café puusal yow. Ndom Ndeye ci loolu. sant yàlla alhamdulilah. ba am nga jàmm. maa ngi sant bu wér a wér. koñ bi koñu kan la. koñ vite fait moo ko moom. vite fait moo ko moom. moom rek la ñuy topp laa la. fii mooy fan Jaxaay 2. fii mooy Jaxaay 2. ci rond point bi. waaw. kan mooy vite fait. waaw vite fait nag li ma mën a wax si moom bëri na. ndax mbër bu am talent la. ba pare mbër boo xamante ne nii maanaam ñun Jaxaay ñëpp daf ñoo yëg. maanaam moo ñuy représenté si biir Jaxaay fii nii. Mm. te mosu ñoo teg gàcce nag. waaw ñun moom lañ bëgg. moom la ñuy topp te fu mu nekk yëpp ñu ngi fa ñu ngi koy ñaanal daal yàlla may ko jàmm ba mu évoluer si làmb ji ba fu ñoom Balla Gaye tollu tey ak ñoom Modou Lo vite dem fa bu soobee yàlla. fan la vite fait dëgg. vite fait ko ma ngi nii. nii la boo gëmmee dem fa. su ma gëmmee dem fa. boo gëmmee nii dem na su ma gëmmee dem fa gëmm naa. yaay booy noo def. sant yàlla bu wér. am nga jàmm. waaw ñu ngi am jàmm. da ngay génn nii. waaw dama doon dem côté cité gendarmerie noonu. waaw Big Fee de moom wax dëgg yàlla miinante wuñ mais dégg naa ne ku baax la moom. wax dëgg yàlla loolu moom dégg nañ ko. mais mais mais naka njabootu léegi. waaye sant rek. Ah. sant rek ak muñ ak góor neex ñeex ñoo digal. waaw surtout ñi nga xam ne seen papa dafa wàññeeku yàggul dara. ma des ak ñoom. waaye sant rek. sant rek sant rek. yal na yàlla xare àjjana. amiin amiin te yeexe ñu. ngay dénk ñi nga xamante ne nii seen way jur ñu ngi fi. xanaa ñu góor góorlu rek te jàpp seeni waajur déggal leen mm-hmm. ndax waajur moom lu ko nit defal rek waccoo ko te loo def rek doo ko réccu bu ëllëgee mm-hmm. bénéfice la incha allah. ñi am borom kër nag te respecté wuñ leen. ah nañ ko jéem a respecté rek te xam ne bu ëllëgee ñoom ñooy suñuy lii keroog àjjana. ñoo ñuy yóbbu àjjana nañ góorgóorlu rek. te seen àjjana ñu ngi si suufu tànk. waaw suñu borom kër ak suñuy waajur nañ leen respecté rek. yal na ko yàlla xare àjjana yaay booy kontaan nañ ci kontaan nañ ci yow bu baax. Bantamba TV Bantamba TV nga nga dajal looy wax ci Bantamba TV. xanaa ñaanal leen yokk ba yëg ko rek. yokk ba ci kanam gën a yaatu gën a yokk daal. kontaan ci yàlla ñoo gën a kontaan. eh mi ngi noonu Lex Lex gis nga loolu Lex boo amee borom kër na ko fonk te tee ko dégg nga yaay boobu li mu wax borom këram dafa wàññiku te yàggul dara mais boo amee borom kër fonk ko bàyyil bàyyi naa bul dem toog naa defal defat def naa ah boo ko defee dinga am dinga nëngaloo nangaloo nee na nee na booy sëy ba jur doom yu baax loolu dafa am solo ah booy sëy waaw moom moo ko wax waaye nangaloo yàlla yàlla xare ko ajana mais ñu dem ba léegi gaa nañu puso aayo ah, Alex booy sëy booy sëy da ngay dégg ndigal tey bàyyi tere boo ko defee rek am jàmm eh yow lu ne ci oto bi nii lu ne ci oto bi yow oh kaay Lex kaay ndeysaan ndeysaan mais mais mais mais mais rijaal kaay rijaal kaay rijaal kaay ndeysaan dama leen na fekk ñuy pousse oto bi tooto oto bi booy xool oto bi defe naa ni oto bi yàggul Ford la ah Ford la de skate bi la Ford skate bi la niveau model bi. bi mooy niveau modèle. kon bii ngay teg machine bi rek. mu indil la mu indil la panne lépp lépp lépp la lay andil. machine si man damaa aay de. boo koy teg rek mu lay andil panne ah. mhm. mais am na benn mbër bu dëkk fii bu ñuy wax vite fait. vite fait mooy seen kër. fii mooy seen kër ci ginnaaw. mais kan mooy vite fait. vite fait moo tudd mooy Baye Sall. waaw baax yaru am yitte ci nit waaw wax dëgg yàlla mën na bëri moo amul benn problème moom am jàmm ak ñëpp moom wax dëgg neex naa nekkal neex naa nekkal moom wax dëgg yàlla ah. mais mais mais euh, Rijal Rijal defal ndànk kañ nga jógee màggal ñun ma xool man ban màggalee ba si gannaawaati suba gi laa laa jógee màggal. lu dal ba def deux jours avant deux jours après loolu. dal ba def ah suus. Ah. waaw am ñoo xamante ne tant que wekk wu ñu yeeli. duñ ñibbisi ah yaa man moom bokkuma ci man moom Baay Faal laa. man moom damay démonter ay yeel teg placé dugal ci biir cin li baxal génne jox jàmm waaw wóor na Serigne Touba. vidéo yaa ngi fi sax bu la neexee ma mayaale la ci. waaw. mais kan mooy vite fait. ah vite fait de benn Baye la. boo xam ne maanaam moom nit yu ñëpp la. waaw fii buy bëre fii ñëpp ay génn wóor na yàlla mbër waa jaxaay la mm. waaw Baye Fall la fii du fi jógee démb si 4-4 bee la toogoon waaw du jug fii fii place kon duggante nag nit ñi waaw waaw waaw waaw boo bëggee am dara maam si nit ñi da ngay wàccee sa bopp mel ni nit ñi boo melul ni nit ñi rek yow nit ñi dañuy toog di la xool loo koy conseil mi ngi jàkkaarloo waaw man lu ma koy maanaam mooy maanaam fi mu ko jàpp ni waa bu mu ko mës a bàyyi waaw bu ko bàyyi rek nit ñi buñ ko rombee rek moom day maanaam maanaam day ay ay ay tolof tolof da koy da koy daal. kontaan nañ ci ndax nit ñi rek maanaam mën a ñaanal. mais oto lan la paan. oto bii nii dafa defoon accident Europe. Oh, Europe la la defee sam. waaw ñu indi ko mu war koo mën a defaraat mu rafet. mais jaaxal Europe yéen ngeen defar. waaw wër na yàlla dañ koy dóor kay ba mu naaj. mais yaa ngi dañ koo xoolee gis nga. waaw biir géej dañ koo xoolee gis nga waaw dañ koy dooraat ba mu naaj. waay waay jaaraama Sénégal. waa jaay waaw waaw waaw ngàcce gaalaama wóor na yàlla ay Baye Fall ñoo fi nekk yoo xam ne maanaam dañuy door muy daanu muy rafet waaw moo tax maanaam fii jaxaay ba mu daj waaw gars yi dañ fiy ñëw ñu dañuy dóor a ñuy dem waaw si jàmm asalaam ñu buñ paree ñu jox ñu suñu waa Europe da ngeen di bandi bandi lu gis nga lii waa Europe tubaab yi gis nga ñun nit ku ñuul ñun ay jàmbaar lañu xoolal oto bi foofu la sogee ñëw fii ñu defar ko noddarti ko indiwaat ko ba mu jëlaat formam ah wàccee ko li yëpp wàccoon li yëpp dafa dafa dafa Ah. vidéo yaa ngi fi sax bu la neexee booy kii ñu jox la waaw gis nga ko biir yëpp dañ koo xool yaa ngi gis ba ci fond ba ne ci biir waaw dañ ko dindi sax dañ koy dóoraat ba mu oh. naagis waaw retour sax bu la boo ñëwee boo ko fekkaatee buñ ko peintré bu la neexee maa ngi dëkk léegi may ma ma dem ci vite fait waaw vite fait fan la nii rek nii e nii waay legs kan la Modou Mbaye maa ngi nii baay baala mbuum xam nañ la mais Modou Mbaye la moo tax du du jaxaay seet si mbëru jaxaay comme kan jaxaay ay ndaanaan a fi nekk waaw mais gisoo barki Seydina Mohamed vite fait ndaanaan la soq ndaanaan la caat bu lingeer ndaanaan la booy waalo ndaanaan la ay ndaanaan fii dinañ fi bëri waaw mais nag temps yi dañ fay am benn naqar barki maam Seera Fall saako jor ñu ngi koy jaalewaat ay mboqam bu baax borom baax la ndaanaan la champion la ñun jaxaay moo ñàkk lamb moo ñàkk billaahi ba tey dañ koy jooy waaw ñu ngi koy jaale ay mboqam jaaya ko mbëru jaxaay yi fi nekk yëpp waaw di féliciter tamit vit fait mi nga xamante ni barki moo Ndiaye yaa ma gën a xam. waaw mais yéen daal seet si leen gars yi. dinañ ñëw barki maam Seera Fall. acca ñu dem rajo gi jaat naa la géwal lu mu bokkul du dem maa la wax lii barki yonent bi waaye géwal waaye waaye géwal waaye mais laa gëj a gis bëccëg maa bi gars yi teg caayin gis nga gars yi teg nii gars yi bégee zoose yii nii dama ko gëj di gis ah te yi dafa cosaane dom day maa ngi lay bégee. waaw ah, ci loo sant yàlla bu wér. mais mais li ngay xoos nii ah. loo ci nar. waaw waajal vite fait bi rek. maa la ko wax. mais lii dafa garaaw de. waaw for bu bees la. lépp pour tey rek. maa la ko wax. noonu la mais kan mooy bu baax. yaru gën. nekk champion. neex naa tëggal. torop. day fecc. torop bu baax. taamul major baa boo ko laajee dina la wax lépp. dam day jeex na demal ci moom mooy kilifa gi. ndeysaan waa kilifa mais mais mais xoolal géwal day civilisé géwal day bëgg boppam. maa la wax lii déggal lii nee naa la géwal lu mu bokkul du dem maa la wax lii ah waaw jaan neex rek na def cuq waaw kañ nga dala ànd ak vite laa yàgg na depuis ba ba ba waaw muy jàpp di daan léeg mu door mu daanu mm-hmm. léeg-léeg mu faax léeg mu faax bater ni waaye kal bi moom loolu suñu yëf la mais lii nga doon def nii mooy lan li nga tëgg cool li nga tëgg léegi lii mooy ndeysaan ngéwal gi lii mooy ngéwal gi barke yonent bi kan mooy vite fait vite mooy ki dàq bëre ci làmb ji ki dàq bëre ki nga xam ne maanaam ba bëree daa war a bëre bu wërewul daa war a bëre kooko doon làmb waaw waaw kooku ay vite borom jaxaay c'est bien fait sa bien fait laay fer Serigne Ndiaye mi nga xam ne def na lu ne te làmb kii bu déggul daal yi kan moo war a dégg daal bu déggul daal kan muy dégg daal mi ngi noonu. bi léwal la wala deuxième wala tarxiis wala lan la. léwal la. léwalu kan la. vite fait. vite fait neex naa supporter. laay romb na ko. ah bàkki Serigne Touba. lu tax mu neex a supporter. non moom yàlla moo ko def si nit ñi su xoli ba pare rek mooy loolu quoi. ana vite fait. mooy si biir. ci biir fan la. si biir kër yi. de ziar naa la. da la ziar. ci loo ne. ñoo ngi sant bu baax kay. lu waral toogaay bi nii. vite fait ana vite fait. moo ci wér. buy bëre da dal. Ah. day confiance. kon ni ñu ko daan yóbbee SR rek. yegg yëngal. Ah. waaw mooy loolu. kontaan waa mais. yaa ngi si <laughs> ku wat de. Pamba. Pamba ko wat. non non yow laay ah, maa ngi lay delloo loolu. ba am nga jàmm. waaye sant ñu ci moom. kan kon fi jógee de. li ma xam ci moom lépp suñ koy wax dun fi jóge xanaa ma ñamal la rek. kan mooy vite loolu mbër la doon mbër doon mbër xanaa xamoo ne vite fait daanagul ñu mu war a daan si làmb. barki sëñ Bamba. ak ñi li ci kanam rawati bët ñi muy daan ñi moo leen mën fuuf. billaahi man sombi laa tudd maa ngi nii yaa ngi si maa ngi fi. acca yàlla baax nañ jël ay suukar rek ay ko ci biir. mais ñu wër vite fait ba léegi de ci yàlla eh waa mais waa mais eh géwal mbaa yóbbu ko ah rocca ket kin waaw waaw eh kii vite waaw mais ni nga dugg see nii dafa am solo. non lii du dara mooy loolu xam nga rek. waaw tey bis bi mu doon moo tax ko waa ga fekk fi lii. waaw mais gars yi ñoo waroon a ñëw ajikoo yi ñëw lépp ñëw. Hmm. mais lii rek dafa neex. waaw dafa neex xam nga heure bi ku ne xam na ni heure yi. heure liggéey la. Hmm. gars yi dañuy dem job bi teewul am na ñoo xamante ni maa ngi leen fi fekk. dafa mel ni ñii tamit am na lu leen jaral ci yow. non ñii xam nga li ma la wax rek bu doon yeneen beneen jour la samedi wala dimanche wala affaire yooyu barke sëñ Tuubaa fii kenn du fi xaj. mais lii dafa neex ñoo lay bett di la ñëw di la set waaw noonu la demee xam a suba nga ma wane ma dama fiy ñëw yàlla comme ngi ñëw fekk nga toog ak mafia bi xam nga dafa mel ni sa diggante ak mafia bi ah ñii aw seen fay barke Serigne Touba ñii fu ma leen war ñu bàyyi seen yite waaw suba gi laa leen woo ñoom ñëpp bàyyi seen yite yëpp mhm. bari sax 5 heures lañ ko tegoon 6 heures pour ñëpp mën a wàcc kër gi gën a mën a seet. Mhm. moo tax ma naan mbër dama koy wax mbëri seen waa koñ yi dee lañ jox cër ndax ñu dañu jékki jeg rek jox ci yow suba mën nañoo jékki-jékki jëli keneen wala léegi nii mën nañoo pare jëli keneen yooyu yëpp moo tax dee lañ ko waaj mais dama ni tey luy dil bi ñu toog waxtaanee wax ama nan caaxaan mooy loolu kafa ak gaay kaf ree mooy loolu waaw léegi madame Badji en attendant bégal ñu ci lu la neex bu ko defee ñu daal di ñëw ànd ak mafia bi toog ñu waxtaanee ko defal loolu lekk sa la koy jox

vite fait ngi noonu mère. booy maa ngi baax. nga ne da ngaa lan. damaa damaa xulóog Modou Mbaye. lu waral loolu. damaa fi ñoo fekk stade dañuy jaay stade Modou Mbaye ñu bokk groupe WhatsApp. waaw Modou Mbaye bu ñëw dañu ruubee. waaw ñu leen kaañu ñu kaañu daal moom xam na li ma a wax sax su ma séenee xam ne ma ko wax. léegi waxal xam nga li ma la wax. waa stade Pikine ñu lay xaar <laughs> waaw tam wax nag biye yi hmm. ñu jaaykat nañu bàyyi biye yi Modou Mbaye rek moo ñu kàttal isaat amee Modou Mbaye moo ñu kaasal bàyyi leen jaaykat dugg bàyyi leen jaaykat dugg Modou Mbaye jàppaat ci jàpp ci jàpp ci jaaykat de kon dafa metti dafa metti de uh-huh. biye yi dafa metti jaaykat yi de Modou Mbaye ñëw suñu xel dal hmm. waaw du ko ñaan e moo kon maire yi nee na nga jàppale leen ah, comme ni nga leen daan jàppale ni jàppale mais ah. tey vite fait la ñu seet si waaw muy doomu waaw kooku doomu jaxaay la kooku boo ci laaj nañ ci sabar ndax jaxaay daf ñoo manqué mu ñëw fii ànd ak xale yi xeexuñu xuloowuñu taxuñu yàmba sàcc ñu boo xoolee détail bi xam benn woyu néew fi mm. di ko ñaanal jàmm nag fu mu bëgg egg yàlla fa egg xale yi ñëpp ku xëy liggéey mm. bu ngoon fi ngay dajee ñu ngi kaf ñu ngi ree mm-hmm. xale yëpp a baax mm. lépp vite fait la nag mm-hmm. man maa yaay vite fait mu ndaw mi tax ma bàyyi ko sama doom wóolu ko tax ma bàyyi ko sama doom pour yenn saar nu ma ko bàyyi sama doom jaxaay dañoo manqué mbër mu ñëw indi ñu mbër nag dañu fañ séntu taysem ak Balla Gaye Modou Lo ak Ama seen moom fañ ko séntu buy bëre nooy def ah kontaan nag da ngay tiit duñuy tiit tiit ndax parce que suñu suñu doom lañu wóolu tàmmal na leen ah, ñu koo tàmmal day bëre daan ñibbi barke sëñ Fallou day bëre daan ñibbi qui est vite fait waaw di ñaan kontaan nañ nag di ñaan nag euh, sama sama bañ may sama mbër mi Eumeu Sène ba jaxaay Eumeu Sène may wooyee wax Eumeu Sène seesi ma Eumeu Sène ma doo lañ may wooyee moom laa bëgg mu seesi ma dafa ma dégg sama dégg sama tur fu ma jaar Eumeu Sène dañ may wooyee waaw lex mi ngi noonu Eh, jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu tey vite fait la ñu seet fii ci jaxaay jaxaay de ci côté rond bi tey foofu la ñu nekk seet si ki nga xamante ni doomu mbër la wax naa la ko léegi am na lu bëri loo xamante nii def na ko ci làmm donte ka yàggul ci làmm mais mi ngi wane ay preuve nii rek la ñuy def di seeti xale yi di xool ñi nga xamante ni ay jàmbaar lañu ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir làmm di leen jàppale di leen génnee parce que boo yu mel nii dafa jar ñu leen di génne di leen wane doomu mbër la wax naa ko doomu Serigne Ndiaye la bu ñu nee Serigne Ndiaye rek xel yëpp dem faas ah. tey moom laa seet si fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari lu waral mu dugg ci làmb lan la def ci làmb ñan la war a bëreel ah ak ñan la jot a bëreel loolu lépp ñu waxtaan ak moom ci loolu. vite fait maa ngi lay nuyu. Bamba ñu ngi lay nuyuwaat. waaw di wax asalaamaaleykum. onze billah bismillah inna waa ni yàlla. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam gannaaw ba ñu sante yàlla julli yonente bi di sant sumay ñaari waajur di samay waajuru ndigg di sant sama waajur ru sëñ Abdou Lahad Mbacke borom leer yi di ko ñaanal jàmm fa mu tëdd sa Touba yàlla may ko fa jàmm sa nekkin ci fii lan la. waaw nekkin bi fii moom mooy loolu comme ni ko gaa yi waxee rek xale nga jox ko cëru xale mag nga jox ko cëru mag seq ak jàmm respecté ñëpp koo bu nuyu ko boo bu dee mag ñi koo am loo ko mën a may nga jox ko mu la waaw comme nekk nu Baye Fall nga ne nañ ci non bu baax man gis naa loolu. gis nga ko gis naa ko bu baax a baax. parce que suma jugee ñëpp day jog xam nga su may combat dañuy ñaan fii seen doom yi du ñu am jàmm. Mhm. su may fi la ñuy fanaan boo yëpp fi la ñuy mhm. nekk lu rëy si man. di ko sant yàlla tamit parce que am na ñu fi nekk di bëre. te yàlla mayu leen loolu su ma yàlla mayee loolu rek. Mhm. dama ci sant yàlla bu baax a baax xam ne lépp suñu borom la. fekk nga ba paa bi daan bëri. non fekkee ko nag. mais après seetaan naa ay combat am. ko gisee woon waa ndaaraan la woon wax dëgg yàlla ndaaraan la woon quoi loo jël ci moom. waaw lépp xam nga rek affaire yi moom mooy loolu boo juddoo fekk sa baay di bëre maanaam boo góorgóorloo tuuti rek suñu borom mën na laa dimbali waaw affaire yi du question da doomu mbër nga rek da ngaa war a bëre. jàngi bëre waaw parce que am na doom mbër yoo xam ne ñu ngi si làmb te mënuñu bëre mënuñu laa wax kele bi bii ban kele la ñoo def kele man nag làmb suñu borom daf maa dimbali dama ko tarbiwu tarbiwu bi mooy ba ma nekkee xale. sama papa mbëri ma sa nañ ñëpp damay ñëw di leen seetaan nit leen kii moo tax mbëri kenn bettu si kenn mbëri dañ may woo ay ñoom Lac Rose ku ne Forza dañ may woo ne ma bëre rek nga war a def yow boo bëreewul doo waroo waaw. Mhm. mais lañ moo la inspiré nga dugg ci làmb. waaw li ma inspiré ma dugg si làmb leen la rek maam magu champion muy Pape Diouf kenn mënu ko si làmb waaw ak Dame Ndiaye mi ak ñeneen ak ñeneen te ay mbër lañ ay champion lañ ñu ngi bëre xañ na nag suñ borom mooy tëdd na doomu aadama fii nga war a jaar fii nga war a jaar kenn dàqu leen bëre barke Serigne Touba ñoo dàq bëre si làmb ji waaw ñuy bëre suñ borom tey bu ñu leen xañee suba mu may leen bu leen xañee suba mu may leen ñoom ñu dem ba xaw a parce que ay gor lañ gor moomul yenn yi di bëre suñ borom di la xañ nit ñi ñi la war a xas di la xas ñi la war a xas di la xas parce que làmb daa metti ñeen lu jàppale sax ñoo la gën a mën a xas tey ma dem ba gis loolu xam ne ay champion lañ ma rey sama bopp suñ ma siisu très bien waaw suñu borom nag dimbali ma ci benn côté bi parce que ñoom yàlla dimbali na ma moom ñoom li ñu amul woon suñu borom may na ma ko waaw muy am naa bu dee ñaari nit wala ñetti sax am naa ñu may jàppale am na ñu may doxal lu bëree bëree bëree bëri man su ma amee combat tëdd rek laay def entraîné waaw di ko sant yàlla bu baax lépp ndimbalu suñu borom la. mbapat nga. non boo xoolee sama mbapat bëriwul de xanaa fi si bayaal bi war nga ak suukar yi. yow yow yow bokkoo ci mbëri génn di mbapati ji dem ci àll beeg yooyu. benn yoon laa yóbbu naa fi ki moom fi yóbbu jaxaaw siin mooy bëre dóor yi ñuy teg noonu paanu ndox xorom. Eh. ah jël naa paanu lan. paanu ndox la ñuy teg <laughs> eh. jël naa ko ñaari yoon jaxaaw eh. siin. Mhm. paanu ndox ak xorom. waaw bëri lan la bëre dóor ku gaañu dem sëlmu. boo nekkaatee ñëw boo mënut a bëre nga ne mootuma bëre. loo xam MMA la. non zone siin bi Fatick waaw yooyu moom suñ borom mën naa lool sax bokk na si li ma gën a jàppale si làmb quoi parce que loolu affaire góor la affaire rek bañkat la xam nga. ban ban année nga dugg ci làmb. est-ce que 2021 xam nga 2020 yooyu daal. yow yàggoo ci làmb. non si làmb. yàgguma si làmb mais damay sant yàlla rek. lépp suñ borom la am na ñu ma jëkk si làmb sax. Mm. fi maa tey si làmb àgguñu fa. comme loolu dañuy sant yàlla bu baax a baax. xam ne lépp ndimbalam la rek. Mm-hmm. sa première avance noo ko def. sama première avance moo tax ma ne la man làmb dama ko war a def rek def ko du question damaa bëggoon làmb wala ma waroon bëre bëre parce que sama ko combat boo xoolee ni mu demee damaa toog fii euh, am benn avance bu yàqu am di ci am suñu grand bu baax di ko nuyu parce que sama carrière jeune si bëri suma ma bëree ba egg fi yàlla ak moom a tax bi làmb ji yàqoo njox ay booy booy bi ne ki ñu ko war a jox ki ko jox dafa diis te boobu sax kooku mbër la may man du ma mbër boobu du ma bëre mu ne ko léegi jox ma avance bi mu may reetaan arène mu may ree ma ne ko billaay boo ma ko joxee du ma mbër boobu du ma entraîné mu def ma dara ay piscine paat laa doon topp affaire yooyu sama doomu nday méta daal ma yóbbu si yooyu mu jox ma avance bi ma jël parce que joxuma sax avance parce que dama ne ko jël avance bi ma may la man naa signature naa bëre feeñ rek parce que ba ma gën a nekk booy dama doon wax naan suñ borom bu ma dundee ba bëre benn combat arène rek sant naa la parce que man boobu làmb dafa ne si man comprendre nga ma dem suñ borom dimbali ma ma def signature bi RTV ma génn si nga xam ne ñëpp di ma woo di ma rey ñii di ma mbalak affaire yooyu ma dem stade Bargny la woon combat la sondé non avance bi ci boppam koo xamante ne nii yaa ngi mësoo bëre ñu jox la avance avance boobu noonu loolu nu ma nekk barke sëñ Fallou joxuma avance dama ne ko lépp jëlal jox ma billet mu jox ma billet mu jël sama xaalis ah, billet bi billet bi avance la billet bi sax joxuma bi ma joxee billet yi billet yi mi ngi ko doon jaayee 2000 damaa jël billet yi jaay ko 1000 francs 1000 tegaat ko ci cinquante mille ne ko reliquat bi seen war naa am cinquante mille ne ma waaw mu ne ko léegi jëlal cent cinquante mille cinquante mille nga ko fa muy deux cent mille muy avance muy muy kii bi mu ne baax na ma dem suñ borom kooku ñëw ma dóor ko ba ñong ko si ay loxo mootul bëri sama sama premier combat fekk sama rak papa mi ngi wàcc woon mbaroodi waaw mu nekkoon champion nag mhm. daanul woon ma ñëw humilier ko foofu xam nga ma pare ñëpp ne ma yow mbër nga war a doon mbër nga war a doon mhm. loolu laal suñu borom dimbali ma si loolu. léegi bi nga ñibbisee nu mu nu demee koñ bi ak succès bi. non defuma dara koñ bi yëguñu ko une semaine la ma xawma trois jours yëguñu si dara damaa benn oto bu ndaw laa luyee fii ma gars yi quelques gars ñu dem suñu borom dimbali bi ma ñëwee ma fi kenn parce que xamuñu woon sax ay mbër laa man boo xoolee samay deuxième combat troisième combat loolu moo ma xaw a handicapé si làmb mais kenn ëpp ma mbooloo parce que jaxaay séq naa fekk ñëpp jàmm def naa fi loo xam ne nii fii nit dëkk na fi te defu ko fi parce que manqué naa samay empreinte noonu lañ koy waxee bi fi ay artistes yu ndaw nekkee booy ay ay xale laa woon comme ñoom dama leen seen petit gàlle comprendre nga génne yëpp kenn si makañ am après xam naa di ko jox damaa def seen petit gàlle comme petit signor waaw seen petit gàlle signor autorité yi ñëpp jàppale ma si tamit waaw ma réussir si ma pare def si ay mbapat xam nga lépp lu ma xam ne doomu jaxaay bëgg na ko rek te mën na cee réussir ma def ko def fi ay soirée sénégalaise te boobu lu ndaw laa gaa yi di ma si jàppale comme man seq naa ak ñëpp jàmm mais sama deuxième combat ay troisième yi boo xoolee mënoo si kenn ne ko mbër laa parce que wax naan kii dañoo yàpp parce que la ma doon dund la quoi. ak na nga ak na ma ak la ma doon dund. comprendre mais nag bi ñu demee ba xam ne kii champion la neex na instant yi ku ma naa combat nga yëkkati lu bari jox ma. kañ nga ñu ngi lay commencé bàyyi xel sa ban combat. sama combat ki Atou Bambara bi ma ko daanee waaw. boobu moo sa ñaateem combat. boobu moo nekkoon sama quatrième combat xam nga troisième troisième. Mhm. nga xam ne ñu ngi lay bàyyi. ma xam ne ñu may bàyyi xel. ma daan ko jëlaat euh, ma daan ko jëlaat sàkkal sàkkal de. Mhm. sàkkal mhm. coow li bari lool. coow li bari lool paa bi tamit koy sant di ko gërëm. kii nii bim naan vite fait mbër la. wallaahi. billaay wallaahi taalaay boobu tollu ma nii. bu ñëwee suñ kër mu ne kii mooy mbër mi. ñu wax mooy leen kii mooy doon mbër mi fii waaw ba mu koy wax nag yàgg na waaw comme di ko sant di ko gërëm moom xam na loolu da daam lu mu gis waaw mhm. mooy père Fawara di ko ñaanal jàmm yàlla may ko wér ba mu fekkee sama njëriñ ko waaw parce que am na loo xam ne ni su ma ko amee dinaa ko bokk ak moom quoi. mais. ndeysaan. Hmm. respecté ay papam ñu ko ñaanal nag. Mhm. yàlla mooy maye. Hmm. yàlla na ko yàlla may ndam. amiin waaw. jërëjëf waay jërëjëf. mais say combat yu bari dañuy gis ay ay jéel yu doy waar yoo xamante ne ni da nga koy faral di def loo jàng la wala loo xamante ne ni yow yaa ko dafa nekk ci yow. waaw mooy li ma la wax rek ma damaa juddoo si kapaaru mbër yàgg toog entraînement face gis gars yi di bëre di daane ay façon jël yu ne lu ma gis entraînement gars yi daane ko su mu ñëwee su may moroon may kaf ak ñoom. di leen jéem a def noonu waaw suñu borom di ma si dimbali barke sëñ Fallou Bamba Thiam bëreegu ma loolu li ma mën dëgg waneegu ma ko si làmb ji billaay lay taalaay parce que ñun yow yaa ngi top 5 waaw mais xam a ñun làmb dañ ko fonk ba buñ ñëwee duñ foo maanaam duñ foo mooy duñ foo mooy duñ duñ wane loo xam ne nii dañ naan kii lii la def buñ waree daan rek dañ lay daan dem suñ yoon waaw loolu mbiru suñu du ma fo ci biir géew mais li ma mën dëgg-dëgg defaguma ko. sa ban combat moo gën sa combat sama combat yi gën a métti bi gën a métti bii mujj nii de xaw naa métti tuuti rek. waaw non xam nga rek ay bagages rek mais dañuy sant yàlla quoi. lan mooy ay comme métti si wàllum bëre parce que làmb ji ni dayoo bi la woon. jël ay coups. non non mosuma jël coups. jàppante bi daa li ma bëgg si làmb amaguma ko maanaam bëreek sama moroom te Ouskara du sa morom. sax mais bëre koo xam ne nii daf may duma ma duma ko. Eh. sama kanam gi néew yi ma xëy suba gars yi ma seet si mbër affaire yooyu loolu laa bëgg. amagoo combat ba léegi amaguma ko. amagoo combat nii maag dab daan ñooy bëre grand combat. yaag dab daan. Mhm, ñooy bëre grand combat. dab daan. dab daan yaa doon wër combat am nga combat. am naa combat di ko ñaanal jàmm moom it bu baax la. bu fa jël sama avance. di ko ma jox cër. waaw di ko ñaanal jàmm bañ àgg ci ak jàmm rek incha boo amee combat noo koy waajee ak gars waajee rek ànd ak sama papa mu may teg lu métti ak boo booyu ndaw yi ne si koñ bi bu sënk a jotee quatre heures fu mu ñoo ma ñëw yeesi ne ma mbër entraînement bu ñu yeewoo def li ñu war a def daal waaw suñu borom may yu ndam. ana Pape daa génn mi ngi tàngoon tan yi fa la nekk quoi. mais moom it dafa nekkoon ci yoon ñu jékki-jékki gis benn Pape Diouf taxaw lu waral. non daa nekk si ruqam rek di defaru xam nga làmb moom daa am ay réalité réalité yooyu nag boo ko bàyyee après boo demee ba si biir da ngay xam ni làmb am na lu mu baaxoo léegi nag li nga manqué moom ngay dem uti ah léegi boo ko utee nag après boo ñëwaatee nag si nekk quoi loolu kese la. tey Bantamba TV ñëw seet si mm. waaw mu nekk loo xam ne nii lu ma yàgg bëgg la aussi dafa ko loo xam ne nii tamit li ma def parce que man kër fii du ma seetaan dara loolu Bantamba TV fii parce que sëñ Fallou démb rek si guddi maa ngi koy seetaan ñu invité rong ba lax moom lañ doon tegaat waaw moo koy seetaan ba ay minuit une heure man mooy sama télé quoi. Mm. maa ngi lay jaajëfal. waaw di la jaajëfal yow it di gërëm ñi nga xam ne nii su ma amee combat dañ ciy sonn waa ASC jàmm waa Mekhe làmbaay képp koo xam ne doomu Mekhe la doomu Lambaye maa ngi lay woo sama combat maag. Mekhe la Mekhe Lambaye mi ngi si Lambaye. Oh, waaw pour man ngaay Mekhe. non Mekhe Lambaye waaw di leen woo ñoom ñëpp sama combat maag dab daan fukki pàkk yeeg ñaari si Ndakaaru yëpp maa ngi leen di woo képp kuy bawal bawal bawal ci xool bi mi ngi ñëw bawal ci xol bi boo ko déggee kepp kuy doom bawal wala nga nekk képp kuy pàkk nekk pàkku làmbaay da ngay joxe 2000 waaw mooy bawal ci xol jaxaay ci xol tamit dina am incha allah ci combat ci combat bi ñu jëm suñu diggante ak dab daan barke sëñ Fallou 4 millions billet laa bëgg a jënd 4 millions 4 millions eh, eh, billaay wallaay maa la ko wax fii billet 4 millions la ñuy jënd si kàttanu yàlla bawal ci xol jeexaay ci xol mhm. affiche yi dina commencé daw mhm. numéro weef yi nañ ko dugal mhm. képp kuy bawal bawal maa ngi la si woo lépp loo am nga tàbbal si képp kuy doomu jaxaay ñu ngi lay woo nga tabak ñu ngi si liggéey liggéey bu am solo ànd si ñoo ak yam baytan xam nga njuufa pa gaa yëpp pa bulet ñu ngi siy liggéey liggéey bu am solo waaw di woowaa jaxaay gépp Moussa ñaa kooku aw ma fayam bërki démb damaa toog fii mu xaw a dëgër moo ko mu yónnee ma xaalis bu bari sama papa Abdou Kandji monsieur le maire xam nga Abdou Aziz Diané waaw Ibrahima Ndiaye xam nga booy yaakaar fii aw ma seen fay sama mag daam Ndiaye ñëpp nooy sama kot su xam nga méta soog sama doomu nday aw fayam xam nga lu ne lay def ngir man day sonn bu baax a baax a baax a baax aw ma fayam waaw di woo waa Jaxaay gépp sama combat maak dab daan Bamba Milano suma promoteur bi teg sama combat maak dab daan maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm nit ku baax la waaw maa ngi moom nekkul sax ay affaire de promoteur parce que dem nañ ba seq loo xam ne nii waaw yàlla xam na moom xam naa waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp képp kuy doomu Jaxaay maa ngi lay woo si combat bi maak dab daan nga jàpp si waaw sama mag makan Baye Mass Dame Gueye xam nga. mais ana Mass Badiane maas mi ngi fi maase mooy. mais maas Badiane da laa bëgg. barke sëñ Touba maas aw ma fayam maas ay génn sax di ay nit di ma woon maas ma jox sa numéro affaire yooyu maas maas ndaanaan la daal. waaw xam nga da laa bëgg. trop maas dama ko gis dama ko gis mu laxasoo jaan ma ne ko maas yow lii ngay def pour lan la. waa kër Samba la tamit jërëjëf Bamba Serigne Samba Ndour waaw. kooku aw ma fayam barke sëñ Fallou. sama xarit la sama lépp la sama sëriñ la sama maara la sama lépp la su ma amee ko mu ñëw télé non dina ñëw incha allah dina ñëw Samba Ndour ma fayam waaw su lépp keroog dem bi ma ko envoyé affaire bi nii daf si kontaan trop li nga ma dimbali barke yàlla moo xam ma des fois xol mooy fàttu. Ah, man man damaa xam ne sa waay amuñu fayam. Dame Ndeye maa ngi lay nuyu. waaw ziar Bamba. waaw di la nuyu di jox sa wàccuwaay. di kontaante bu baax nag ñëw bi nga fi ñëw quoi. da xamal ne vite fait mi tout tànk la judduwul maa ko yor sama loxo yi man maa ko ci yar Pikine yaa ngi dégg man la doon toggal simikaay dafa yàgg topp làmb nag dafa yàgg topp làmb di ko ñaanal ci kaw ci kanam quoi di wax jaxaay ñëpp nañ génn jàppale ko ndax xale bi ko jàppale mu dem jàmbaar la quoi mhm, jàmbaar la. mais dégg naa tapet kii du tapet déggoo ma ne la yóbbu naa ko euh, benn dëkk jaxaw siin yóbbu ko fa benn dëkk di isee di ko xool fu mu toll quoi mais li ma gis ci moom ba ma ko gisee premier kombaam ba mu ñëwee lu ma yoroon lépp laa ko jox ne ko demal daa am lu ma gis ci moom dafa am lu ma gis ci moom ma jël sama ngemb samay bagaas yëpp na ko am demal. Mhm. Mhm. loolu moo tax man ma bàyyi bëre waaw ne ko na góor góorlu jox ñépp cër na góor góorlu bu baax te xam ne bu góorgóorloo rek dina lekk xaalisu làmb incha allah. loolu rek laa koy sant na góorgóorlu rek di la jaajëfal bu baax. Fifi jàmbaar la champion la mooy suñu champion te lu ma ko doon wax démb laa koy waxaat tey mbër boo bëggee ku la jàppale ay jox ñu ñi ñëpp cër waaw mbër euh, noonu la quoi yaay naxante di am waa di ko ñaanal ci kaw ci kanam rek waaye jàmbaar la waaw dafa jox ñëpp cër respecté ñu waaw. ñu xam ko si moom tamit te buy bëree tamit ñun ñëpp suñu xel day dal kay te xam nañu ko ñu àndal daanaan la oui di ko ñaanal contrôle dam daan yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed oui. non ñooñu la ñuy wax yëpp newul moom mooy loolu saa moom la moom nee naa la moom mooy cap cocktail molotov moo mujjee ñëw gën a xew dab daan nag nañ ko am na combat bu waaw da feebar yëpp dafa ñëw mu taamu si siti dina woo ba tas waa du ma mooy sa yaramu si gaa da ngay wokkatu ba tas. loo sa yaramu de neex loolu mosul neex. <laughs> da ngay dagatu rek sa yaram yëpp day tàng naan wa. Siteu daal moo dàq ci fee bi da ngay muy gën a neex. fu muy neexee. <laughs> wokkatu <laughs> loola. mais mais mer wala. non sa waaw moom mooy la euh. mer moom. waaw gaaw mer moom. si loolu la xam rek mais mbër xam mbër moom jikoy mbër gi day ñëw esaan ay ñëw sax taxaw rek mu dugal la ko <laughs> loolu mais da ngay comprendre filaay <laughs> xam na non mais mooy lool non yow moom du ko def baafaa la moom dund dundoo ñun xam nga mooy waaw soo wax na dëgg hmm. bi moom si moom la nekk <laughs> e eh, jaajëfate aa ah, ngañ dem baak jaay guy ganiis naay mooy ngañ dem baak jaay aa ah, tureet na sekk sekk nii ki mbaa mengi yoo fi géej tey la samba yaane samba yaane ngan jaay digi digi joor naay wàcc ma daan naa la wóorul ku daan ku daan da ngay féete kaw cooli cooli ate lay mujjee su tukki yàggee feeñ waaye bu jam yàggee jàmbaar feeñ jàmbaari jooni jooni jooni jooni jàmbaari léegi léegi goy samba jee waaw guy ganis na Vite fait champion wona le Kordama Kordama ndeysaan waaw waaw wona le do ñaaw wona la vite fait Alaaji Serigne Ndiaye la ni oy baay baay fal wona la do ñaaw Kordama guy ganis naay mbokkum yaayi Bamba Caame wona la korndama sambane ngan njaay la sambane ngan njaay jaal jaal bu ba jaal caam jaal ma ca ayre jaal ma neex ma woo lañ daan baramu nu mbey sa wal joojo ñang baala ku rafet ma ma ca dagano ñu ma reere xaay ay waay bàkk naa la sama waaji yaa baax yaa baaxee tey la samba yaane gaan digi jor na yaa baax yaa la samba yaane gaan digi ay waay yaa baax yaa la samba yaane gaan digi jor na waaw waaw eh, neex loo ñuy may ci Bantamba TV waaw ndeysaan dëgg du neex waa Bantamba TV ah fariyu juwaal gi naa ko daan jël samaam ala gi naa ko yoo faat may ndeer Bantamba TV ca kaw ca kanam lu yàgg dëgg la yéen ngi jàppale Jeunes Talents yi Bantamba TV yaa baax yaa baaxee waa Bantamba TV woo naa leen. waa ma ñëw waa ma ñëw waaw. Bantamba TV wona la doon ñaaw ndeysaan waaw waaw eh, jërëjëf lex gis nga tey li nga xamante ni moom moo xew fii tey waa jaxaay gépp wane nañ ñi vite fait ñu ngi ci ginnaawam wane nañ ñi tey ji ñu ngi ci ginnaawam bëgg nañ ko jàppale ba tey jii fa ñuy dégg ñoom Modou ñoom Balla Gaye ñu dégg ko fa moom mii waaye nag moom it naa xam li ko war xam ni ah waa jaxaay ñu ngi ci ginnaawam nelaw la waratu la da nga war a góorgóorlu li nga passé yëpp six combats yooyu six victoire yooyu yëpp jël ko nga teg ko sa ginnaaw xool li nekk sa kanam te xam ne ndaanaan doomi ndaanaan ndaanaan lay doon bu ko gëmee kon mu ngi noonu léegi nag nañu xool paa bi xool moom it nan la waajalee doomam xool ci yan loxo la ko teg. ah ñu def noonu mbokk nii rek la yenn mbër tey vite fait yow yaay. méta la. méta bu. bu vite fait. dëgg nee nañu vite ku ko gis gis la ci ginnaaw. waaw loolu loolu yàlla moo ko dogal maa ba ñuy ànd xalaatu moo na doon mbër. Hmm. si leneen lañ doon business. ànd bee jiitu mbër ànd bee jiitu làmb ji. ànd nañ tëgg làmb tëgg nañ ay mbapat boobu xalaatu woon dina doon mbër. a nekk si business laa bëgg xaalis ma bëgg xaalis ñu nekk ànd ay bawal bawal lañ <laughs> loolu moo ñu boole. waaw ah, jékki tey moom yàlla def na man maam moom mosuñoo ànd sax bam bay xuloo wala am lu ñekka sama diggante maam yàlla def na loolu moom loolu da ngaa jaaxal ne ma am xarit ba yàgg moom comme maa yow nu ñu yàggee maa bi fee mosuñoo jubóole mm. mosuñoo xuloo comme ma toog mu téye boppam ma téye mm. sama bopp mosul am sama diggante maam kenn mosuñoo jubóole te kenn du taxaw ne mosuñoo jubóole maam loo ñu mën a nettali ci temps booy benn anecdote kon moom xam naa daal bëggoon na xeex moom bëgg na histoire loo ko wax moom moom di woon lu baat moom. Hmm. moo tax gars yi dañ doon wax daal dina koy reet ak yooyu mais day bañ ko ko yab. day def mais mais fàttali ñu benn problème boo xam ne àndoon ngeen ko moo arrivé loo xam ne yow doo ko fàtte. <laughs> comme maa am na benn jour mos a ñëw ànd comme maa lañ doon wàcc ñoom benn àll bu ñu fanaan ñu tëdd ba guddi noonu. Hmm. <laughs> ngeen tëdd ba guddi. di tëdd ba guddi fekk ki ñu seeti woon daa may affaire yu ñu wonoon si guddi gi balaa ñëw tëdd. Eh. léegi nag mu tëdd nag loolu des si bopp bi. bu man tëddaguma ma téye sama téléphone di manipuler moom mu tëdd noonu si àll bi. ma jékki-jékki di tëdd pour nelaw. ma kaa jékki rek mu tiit yuuxu yuuxu néeg bi yëpp mu ne moom bagage yi affaire yi ñëw affaire yi moo ñëw si moom quoi ndax affaire yu mu gisoon moo des si bopp bi bu la ko yee man la bu la tiit mu yuuxu néeg bi yëpp loolu nag ba léegi dama ko koy jàppee kañ day de sama diggante maa moom mais loo koy ñaan loolu non ma koy ñaanal tey li ma yéene sama bopp rek loolu laa ko yéene ndax xam naa moom lu baax la la ma yéene nit ku baax ko mu gis mm. wala lépp loo xam ne gis na ko mu nekk sama domaine wala sama métier daf may boole moom man tamit ndamoom amul lu ma jaralul mm-hmm. suy bëree man sama place gàttal combat am daf may jeexal lu ne lépp laa si def mhm. lu ma mën ak lu ma mënul yëpp dama koy def mhm. ndax nga ànd ak nit ñëpp bu xewlee bu ñàkkee la day mel ni yaa moo tax bu amee jàpp yaa gore waaw kay moo tax Lex mhm. Lex jërëjëf tey vite fait la ñu seet si woon gis nga ko tey ay copain mag ñëpp ay am di jàmmam ñëpp wane nañu ne vite fait ñu ngi si ginnaaw mu ngi noonu bëggoon noo gis paa mais paa bi moo génn moo tax quoi mais saa su ne nii rek lay demee lex lii may wax nii yow laa koy wax nga jottalil ma ko Cheikh Ahmed Cissé yàlla du moroom yàlla kenn la jalla jallaaloo kenn la tey jii bu ñuy noyyi te duñu fay ñuy lekk te du nu fay comprendre nga ah ñuy dem di dox te du nu fay ñuy noyyi ci eeram gii te du duñu fay kooku mooy sunu borom sunu borom boo ko mënul sant ko gërëm ko bul wax lu ñaaw des fois nag ñi may balaame mooy ñi naan ay boo laaloon sëriñ bi dinañ wax wala déedéet yàlla du moroom yàlla mooy fee koo gis tey jii ñu koy tudd suñu borom la koo gis ñu yaakaar ci moom yëpp suñu borom la yaakaar Cheikh Ahmed Cissé wàññi sa gàllaat ñu jam la li nga def nii fi ngay dugg baaxul yàlla du moroom yonent bi sax du moroom waxantuma la ak suñu borom mi nga xamante ni kooku mooy cooki fin xam nga fin liñ naan gaynde bu bëfee ci yoon fa la yoon wayam mais yàlla fa la fa kilifa yam Ahmed Cissé Cheikh Ahmed wàññi sa gàllaat ñu jëm la mbokk lii lañ leen indiloon di leen jox dig daje ci beneen daanaan ci beneen sampion teg leen foofu seen baaraam madame Badji dafa lu la neex dafa lu neex comme que kenn naan xaw ma tudd suñu borom ba pare di wax ay filaale madame Badji filaalel sànneekul defal lu la neex yaa ko moom tegal lu la neex ci ginnaaw lii may wax nii jëlal Bombardier d'accordul ci tirage bi. tirage bi pour ku ku nekk fi nga war a taxaw. fi nga war a taxaw. yàq lamb sama xel ñaaw na. sama xel ñaaw na. Robert ñëw na wax ak. Robert a ngi wax nee na ko demal bu arbitre bi sifflé. Robert na làmb ji. waaw Robert defar na ko. merci Robert. ndeysaan. ak euh, bombardier bombardier bi mu jàppee loxo bi Yékini dafa bañ. fekk loxo bi. taxawaan na bu Yékini bombardier jàppaat na loxo càmmoñ ba jindi ko. ñoom ñaar. mbokk yi gëw eh. door na. bombardier door na. bombardier Bombardier door na Yékini Bombardier ñu ngi ci saak arbitre bi arrêté na combat bi nee leen doo leen bëri foofu ñoom ñaar ña ngay leew toowaat je crois que actuellement Yékini mi ngi sentir dóor bi Bombardier Yékini la mu bëggoon am na ko Yékini la mu bëggoon na ko jàpp na ci ngem Yékini li mu bëggoon am na Brésil Yékini jàpp ñaari loxo yëpp a ngi ci ngem ñaari loxoom yëpp a ngi ci ngem am na lu muy waaj ñu ngi déglu Bombardier ah Yékini daan na ko Yékini daan na ko Yékini c'est le roi Yékini c'est le meilleur je vous l'avais dit c'est les cinquante a années. extraordinaire dëgg la carrière bu jamais vu.